Euh, euh, euh, d'état-major de l'armée de terre mhm. à un poste de détaché militaire ca New Deal mu nekk mbir bi nga xamante ni juróon na polémique jéem na ji ñu ne France daat na koy honoré ban gis-gis nga am ci lu ni mel. <laughs> waaw jaar jërëjëf. defe naa xibaar bi bi mu diwee biig rek ñu ngi ci waxtaan waaye defe naa. mbir na nag lu moo xamante ne lu ñu war a jàngat la nag. Mhm. avec beaucoup de sérieux mhm. waaw parce que ki mu concerné moo tax ak fa distinction ba jógee. Mhm. ak c'est important ak la muy liggéey. Euh, man gis-gis bi ma ci am benn mooy damaa gëm ne loxol Macky génnu ci. Ah. <laughs> waaw loolu loolu sama xalaat la loxol Macky Sall génnu ci pourquoi. si vous vous rappelez Macky bi ñu ko bi ñu ko falee en 2012 li mu njëkk def mooy dem Paris sa première visite officielle en tant que président de la République du Sénégal France la ko def Nicolas Sarkozy moo ko accueillir visite boobu soxna Ami. Mm-hmm. Macky si signé na fay accord militaire avec la France tibb fa lu toll ci cent trente millions d' euros dégg wax bi. accord yooyu moom mooy ñëw wuutu accord de défense yi nga xam ne depuis 1960 mi ngi ci réew mi. 60 laa wax ba 2012 Macky bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy dem France signer d' autres accords de défense avec la France. ñu dimbalee ko fa 130 millions d' euros. kon ñi nga xam ne dañu naan Macky Sall dafay préserver les intérêts français. dafa am loo xamante ne dafa dafa dafa tey xel xam nga luy tey xel. Mm-hmm. Macky mënul jóge suñu bopp réew la même France jël ko dénk ko 4P yaa ngi dégg wax bi. Mm-hmm. ñu ne déeta waaye suñu président de la république dem ko fan yii fan yii jóge ci visite boobu ñu ne non dañuy dañuy promovoir un général boo xamante ne bañ ko wàccee dafa jur coow ca réew mu dëkk. Mm-hmm. ku laal di loi. ñii nee nañ c'est de l'ingérence mais man pour man ça va au-delà de ça. ba pare France dafa xam ne gis nga euh, euh, la Russie fédération de Russie pourquoi fédération parce que Russie ay réew yu bari la c'est une fédération. Mmh. Russie en deux mille vingt ministère de la défense am dafa proposer le parlement pour ñu pour ñu signer ay accords militaire avec avec le Sénégal. Mm-hmm. parlement bi accepté ko kon Russie ak Sénégal ci ay accord militaire lañ jëm bu ñu toppee cette proposition validée par le ministère de la défense acceptée par le parlement russe Sénégal ak yi ci ay accord militaire lañ jëm te li ma lay wax ni daaw la daaw lañ ko négocier 2023 mm-hmm. beneen volet bi mooy képp kuy observateur xam nga ne les intérêts de la France au Sénégal sont menacés ñaari ponk ñoo ci ëpp doole benn bi mooy le retrait de troupes français du Sénégal mooy les éléments français au Sénégal comme dañu ko doon waxee keroog ñibbi mhm. beneen bi mooy la souveraineté monétaire génn ci franc CFA bi gis nga ñaar yooyu bu ko France ñàkkee mooy ñàkk na c'est fini parce ay la yéwén France li li làmmiñ wi rëy rëy rëy ci Afrique ñaar jàpp ñetti réew la fi amoon yu am doole yoo xamante ne dafay continuer di am mainmise Gabon la te Gabon Ali Bongo jóge na fa donte ka fa nekk moom it fan yële paase rek dem na France Côte d'Ivoire pa bi laaj quatrième mandat ak Sénégal ñetti réew yi la France amoon ci réew yoo xamante ne tey li ñuy wax France Afrique dëgg ci ñetti réew yooyu la ëppoon lu mu koy doxal. yàlla dogal na ne nag ci kaw bopp réewu Sénégal dafa am changement de régime bu fa am te ñii ñëw li ñu bëgg mooy les troupes français jóge Sénégal ba pare ñu waxtaane une souveraineté monétaire bu jaree ñu génn ci CFA bi ñu génn ci mais loolu France bëgg ko hmm. ah oui France bëggul loolu donc gis nga ñu naan ay ay France dégage France dégage loolu pour man aspect économie bi la nit ñi di gën a gis. Mm-hmm. muy ay Auchan yu ñuy toj ak ay affaires yooyu. Mm-hmm. mais li li ne ci suuf moo gën a garaaw et c'est les accords militaires. Mm-hmm. Hmm. léegi ñun logique pour logique bu fekkee suñu état dafa nekk ci logique boobu. te te te gis nga diplomatie les mots ont leur sens. en diplomatie gis nga keroog ba président Bassirou Diomaye fay demee Paris gis nga diineem boobu ak ak ak ak Emmanuel Macron am na lu fa xew lu génn gut hmm. ah c' est pas pour rien que ñu génn ci rek automatiquement Emmanuel Macron amul lu muy def lu dul promouvoir un général boo xamante ne président de la république bi nga fi dalal ay y a des heures ci ginnaaw daf ko wàcce woon mais il faut il faut étudier saa yi nit ñi dañoo am xel dañuy xalaat. donc forcément am la ba pare mais Sénégal du nekkul Séné euh, France nekkul réew mi nga xam ne moom rek moo signé ay accord militaire avec le Sénégal. c'est vrai. Mhm. comment se fait-il que la France ñoom ñoo promouvoir le général. ak général polémique dafa am lu ne ci suuf. Mhm. li ne ci suuf nag xoolal nañu dawal tuuti ñu xool gis nga les actes là yi France di poser surtout sur le plan militaire conséquences yi ci kanam la c'est pas maintenant man je reste convaincu que ce général Kandé il doit être surveillé. Mmh. ah oui. Mmh. oui. il comme du lait sur le feu. parce que les puissances étrangères bu ñu bëggee déstabiliser réew yooyu la ñuy def ci yooyu la ñuy tàmbalee ah. dañuy fexe ba am des hommes yoo xamante ne dañuy nekk ci seen waaw ba nu ñu leen digal ñu def moo tax Macky Sall bañ ko falee ay la yoon mun a bëri dem France signé fay accord militaire avec Nicolas Sarkozy gars yi nañ dem xoolaat archives yi. Mm-hmm. ñu dimbale ko fa cent trente millions d'euros mu ñëwaat toog ci réew mi ne miix. Mm-hmm. français yi di gën a am doole lépp loo xamante ne prenons l'exemple du mais Ablaye Wade dafa dàqoon Bolloré. Mm-hmm. indi fa dë Dubai Port World. Macky Sall bi mu bi mu faloo lu mu def daa dàq bu Dubai Port World indiwaat Bolloré jëlaat suñu port bi jox ko les français kon. lii buñ ko nit ñi jël à la légère c'est pas une simple distinction ah non man je reste convaincu que c'est des actes que la France est en train de poser te conséquence yi mag ca kanam mais man gëm naa ne suñu njiit muy le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko le le ministre des forces armées le ministre de l'intérieur ak ñi yëngu ci wàllu sécurité ñëpp pour man xam nañ li ñu war a def waxin la nag bugguma bugguma àgg ci ci ci ci ci ci terme bi euh, muy jur coow li ñu war a def ñoom xam nañu ko kon nu ñu gën a taxawaat te xam ne. dafa am ku ñu féete woon kaw koo xamante ne moom dafa jàpp ne ñun ab élève am muy la France mu jàppee boppam maître ba lu mu wax suñu dirigeant yi ñu def ko tey France xam na ne plus ñuy dem plus muy perte wax ma sax Sénégal mais Afrique dàq nañ leen Mali dàq leen Burkina dàq leen Niger xam nañu ne bu ñu dof dofloo ba ñàkk Sénégal mooy c'est fini mais loolu France aussi du toog di seetaan vous pensez que la France va croiser les bras comme ça euh, di perte privilège yi nga xam ne am na ko Sénégal déjà de 1960 à maintenant non il va tout faire ou elle va tout faire pour déstabiliser ce régime et loolu ñu nekk ci kaw nag xam nañ ko xam nañ ko kon bu nit ñi jàpp ne rek des distinction la boo xamante ne oui parce que voilà c'est vrai le général ñun xam nañu exploit yi mu def mais pourquoi maintenant ci contexte bii ñu ne pourquoi defuñu ko woon depuis très longtemps. Mhm. pourquoi ñu xaar ba changement de régime am mu leer na leen ñii fi nekk li ñu bëgg mooy une souveraineté économique une souveraineté militaire am ay ay ay am am une sécurité boo xamante ne tey wax naa la ko léegi le parlement russe a accepté la proposition du ministère de la défense bu Russie pour qu'on signe des accords militaires mais loolu neexul France parce que France wu jëm Russie la <laughs> dañuy wujjee. donc lu ñu mën a def pour pour pour sotti suuf ci cere ji danañ ko def waaye nag ñun xoolal gis nga bool bi def cere ji waaye waaye nañ ko upp nañ ko upp upp ko ba nga xamante ne tey képp ku tudd suuf bëgg cee sotti du àgg ci cere ji waxin la nag déggin la laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà. voilà Amina mhm. comme ni ko euh, Socé waxee mu jàpp ni daal dafa am lu laxatu su suuf ginnaaw France ba mu daal di honoré général euh, Kandé bi nga mhm. xamante ni euh, ba ñu ko daal di dàkkee ci chef d'état-major de l'armée de mhm. terre à un poste de détaché militaire ci New Delhi ñu gis ni nomination boobu juróon polémique tey nga gis li nga xamante ni France dox na ko ci jéego jëmale ci moom donc ban gis-gis nga am ci lu ni mel. nomination bi juróon euh, polémique jaara bu ñu mm. ci bëri sax a doon jàpp ne mbir yi ca jot a xew yëpp Ousmane Sonko. moo nekkoon daanaka ci ginnaaw. Mm-hmm. damay faral di wax naan mbirum armée dafa nekk mbir moo xam ne dafa sensible. parce que mbirum armée dañuy faral di ko waxtaanee ci pénc mi. Mm-hmm. ndax dafa nekk mbir moo xamante ne dafa nekk lu stratégique loo xamante ne nii mën na yëngal li nga xamante ne moo di askan. parce que dama faral dañ fan yooyu dama doon faral di wax naan ñi nga xamante ne sax duñ daan dugg ci débat armée dañ ciy dugg. Mm-hmm. te loolu ab dëkk war na ko moytu parce que mbirum euh, li nga xamante ne moo di sécurité publique la c'est très important bu ñëwee ci li nga xamante ne euh, moo di boobu la nomination euh, coopération interarmée diggante France ak Sénégal loolu du lu bees yàgg na fi yàgg na fi parce que gis nañ ki nga xamante ne également moo di semga boobu di Cheikh Wade mës nañ koo daal di décorer ka ka defoon mooy réew bu France donc mbir moo xamante ne la du lu bees yàgg nañ koo gis mën nañ ne bu euh, général Kandé bi moo mujj. Mhm. mais ci contexte bi nga xamante ne. la amee loolu mooy mbir mi. Mhm. parce que mënuñu concevoir koo xamante ne nomination wala bañ ko tabbee indi na ay polémique yu bëri wala indi na ay coow lu bëri ñu gis ki nga xamante ne euh, mooy euh, président bu France te moom mi nga xam ne sax moom président bu France boobu daanaka am na benn. mbir moo xamante ne tabb na ko ki fi nekkoon jiitu réew. Mm-hmm. donc dafay indi benn nuance boo xamante ne mën na lëndëmal xelu ñi nga xamante ne euh, moo di askan wi ak lu ci mënti am rek jaara mbirum l'armée dafa sensible donc ñun ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal nañu éviter di dugg ci yenn porox ndoll yi. Mm-hmm. parce que nemmeeku nañ ne France mën nañ ne jamono ji dafa nekk en danger. parce que nguuru ki nga xamante ne euh, moo di euh, wala sax nguuru Macky Sall ba nga fi nekkee danga daan gis ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi te nekkoon opposition jamono jooju ils étaient que ni France dafa war a génn ci Sénégal. Mhm. Sénégal dafa war a am ne boppam Ousmane Sonko gis nga yu mbir yu bëri yoo xam ne mu ngi ko doon xeex ñeel wàllum France boobu dem na sax ñu naan France dégage ainsi de suite ainsi de suite. Mhm. da dama ne France dégage boobu c' est au delà de ça parce que li nga xamante ne ñu lii ak France c' est plus fort du nekk lien boo xam ne dañuy xëy rek dindi ko mais war na am coopération boo xamante ne win to lay doon coopération boo xamante ne cinquante cinquante bëgguñu gis euh, coopération boo xamante ne. dañ naan France bu amee France cinq quatre-vingt la ci am Sénégal am ci vingt mhm. loolu daf fi war a jeex donc la France wala sax ki nga xamante ne moo di président France comprendre la loolu xam na ne instant bi nii moom nekkinam ci biir Sénégal dafa nekk en jeu te à chaque fois dama koy faral di wax tubaab fu intérêt nekkul du nekk mhm. parce que tubaab yi ñoom dañuy diviser pour mieux pour mieux régner te am na ci foo xamante buñ fa jaaree rek dinañ fa jot li nga xamante ne moo di pays africain yi mhm. te yenn ci pays africain yu bëri dafa am mbir moo xamante ne teel ko comprendre jaara muy daal di démarqué moom Rwanda au Rwanda la wax képp koo xamante ne rek yow Rwanda nga dëkk nga fa di nga gis sa bopp bu baax a baax ci li nga xamante ne moo di dëkk ba gis nga troupe française yi nga xamante ne ñu ngi ko doon waxtaanee fii keroog France daanaka axe stratégique yu bëri ñoom ñoo fa nekk am na ci côté yoo xam ne tey jii maa détaillé bu fi jëyee amoon. foo waree génn foo waree duggee. Mhm. ñoom ña nga fa tege donc da dem finalement ne ñun ñoo moom suñu dëkk wala tubaab bi ñoo ko moom donc je pense que jaadu na ñu xoolaat li xamante ne moo di suñu coopération yi mais aussi jaadu na nekkin bi nga xamante ne ñoom occupé nañ ko suñu dëkk bi te telle sorte que ñun sax bu ñu bëggee génn amaan na ci ñoom lañuy ñuy dépendre pour génn wala pour ñu dugg. Mhm. te loolu je pense que war na jeex sénégalais képp koo xamante ne askanu Sénégal nga wala képp koo xam ne également yow yaa ngi dëkk ci dëkk bi nga mën ci gis sa bopp xamante ne wala sax français yi nga xamante ne dañuy ñëw lépp loo xamante ne askan bi moo ko moom wala lépp loo xamante ne africain yi ñoo ko moom ñu ñëw du ñu dominer. parce que France tey jii bu fekkente ne euh, Sénégal ak France yenn accords yi dëñ na. d'accord ñu bëri dañuy foog ne Sénégal ñoo ciy sonn. Mm-hmm. mais c'est le contraire <laughs> français yi ñoo ciy sonn parce que li nga xamante ne ñoom ñoo leen di jëriñ amaana sax ñun xamuñu ko mm-hmm. suñu ay matières premières ñu ngi fi ñoom dañ koy jël di ko yóbbu di ko exploiter di ñëw duñu ko jaayaat te mbir yooyu yëpp ñoom ci seen intérêt bopp la nekk donc je pense que euh, ñun war nañu ñi nga xamante ne ñoo suñu dirigeants yi aussi mu bañ a nekk ci wax donc ñu ànd ak jëf ànd ak jëf joo xamante ne euh, tey jii bu fekkente ne askanu Sénégal bu fekkente ne njiitu réew yi nga xamante ne ñoo fi nekk am nañ fulla wala am nañ maturité ga nga xamante ne bépp pour président français bu taxaw ak njiitu euh, africain di xam ne kii kat dina teg loo xamante ne nii bu ma ci nekkee ak moom. coopération lay doon mm-hmm. waaye tamit ñaari mbir yoo xamante ne la ku nekk dinañ ci gis seen bopp. Mm-hmm. mu bañ a nekk rek mbir moo xamante ne euh, benn francais wala benn européen moo ci gis seen bopp au détriment ci ñi nga xamante ne euh, ñoo di africains yi te mm-hmm. yaakaar naa ne loolu africains yi ñu ngi ñu ngi ciy gis ñu ngi ciy def ay jéego bu baax a baax gis nga président bu fi toogoon da nga gis ne say première sorti France nga koy defee mais bii dafa am rupture boo xamante ne askan bi dañ ko nemmeeku daanaka def na dix voyages yoo xamante ne ci pays africain yi la ko defee bi mujj bi la dem France te loolu sax nekk loon visite officielle amoon mu daal di ci porox ndoolu dem seeti ji mm-hmm. je pense que mbir yoo xamante ne war nañ ko bàyyiwaat xel bu baax a baax tey maytu mbirum armée yi nga xamante ne dañ koy faral di waxtaanee parce que mën na indi déstabilité te loolu yaakaar naa kenn ñaanu ko ah, mu mel ni ah, professeur général Kane fleur jamono ci ñu toll nag mu nekk benn euh, décoration bi nga xamante ni jur na euh, polémique euh, ginnaaw nomination bi nga xamante ni def nañu ko mu juróon polémique bu baax a baax ci réewum Sénégal tey nga xëy ñu ne la France décoré na ko donc ban gis-gis ngay def ci décoration boobu. man avant ñuy ñëwaat ci décoration bi hmm, je pense que affectation en Inde bi mu fi defee polémique man dama wax ni. mbiru armée dafa nekk lu sensible. Mhm. ba pare mbiru armée aussi dafay laaj confiance dafa am yenn poste stratégique yoo xam ne pour nga bàyyi fa nit il faut de la confiance. Mhm. benn il faut que aussi moom mu capable répondre aux différentes stratégies yi nga xam ne yow yaa ngi koy mëne ci foofu mu nekk walla ci zone boobu mu nekk ma doon wax ni fi mu nekk dafa nekk benn zone bu stratégique pourquoi. parce que ñun ñëpp xam nañ ni la crise casamançaise a pendant longtemps secoué le quotidien du Sénégal. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne dafay tarauder esprit dafay dafa dafa dafa jaaxal nit ñi dafa inquiéter ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy diriger ñu jëlee ko fa yóbbu ko Inde affectation bi def polémique ba ñenn ñi ne warul def polémique. Mm-hmm. parce que un plus un la égale de état moom moo am les prérogatives. nominer ay nit rawatina ñenn ñi nga xam ne dañoo occuper yenn responsabilités yi parmi lesquels des généraux ci loolu ñu dem tey France décoré ko Socé Ndiaye ne loxo Macky Sall génnu ci. sama xalaat. loolu xalaatam la. dafa am na droit xalaat. mu ne loxo Macky Sall génnu ci. moo lal di wax. waa léegi français yi du ñu bàyyi. mënuñoo bàyyi nag parce que seen intérêt ñoo fi nekk. mënuñoo bàyyi. ay nitu intérêt léegi Amina mënuñu ñoo bàyyi d'accord waaye léegi du ñu bàyyi dañu ruube. Hmm, da nga jàpp ni li ay ruube la. xam nga ruube fu mu commencé. Hmm. le deux jot damay dem élection yi jeex premier tour wala deuxième tour am damay dem avant le mu ne organisez-vous s'il n'y a pas d'élection d'autres forces viendront prendre le pouvoir ma koy wax de waa léegi le 24 mars jàll ñu fal président Diomaye fay qu'est-ce qui s'est le deux passation de pouvoir après lu xew mm-hmm. Macky a été recruté 4P France ñëw na ñu ne loxol Emmanuel Macron génn ci ñu ne waaw moo ko fala loolu justifié lu bëri lañ doon wax demati na ca patron wom rendre na ko compte waaw li mu def patron bee ko def loo bu ñu gisee mu def benn mbir boo xam ne sax sénégalais apprécié wuñ ko ñu gis Macron Macron tuwi tuwite mm-hmm. moom moom xam naa loxo yi moom gaaw na ci bind rak tak tak tak tak mu tuwite félicité président Macky Sall waaw baax na sénégalais yi ñenn ñi am certification que ni waa ji moo nekk ci ginnaaw waa ji nekk ci ginnaawam noonu moom moo ko fal 4 mu dem 4P qu'est-ce qui s'est passé tey ñu ne dañuy décorer général Kandé ku ko décorer décoration bi ëmp na Macron yaakaaruma ko de ëmpul Macky Sall li soose wax donc xalaatam boobu dafay validable dañ koy mën a valider léegi nag xam nga dafa am loo xam ne buñ koy def dañuy jox raison ñi nga xam ne ñoom ñooy jël ay décisions actuellement ñi jël ay décisions mooy ñi ñu jiite le président de la république. par l'intermédiaire parfois de son premier ministre su dee je me suis permis de commencer ci li ma waxoon bi euh, nomination bi amee mm-hmm. mooy que wàlluk armée dafa sensible et question de confiance daf cee fondamental mm-hmm. waaye xaytamu laa ñi nga xam ne jëlee nañ ko fële mu nekkoon ñu affecté ko Inde dañuy am raison tey jii nii bu ñu gisee France décoré na ko parce que France aussi osons le dire face à ce régime actuel France day taxawee taxawaayu antibadassier day suul ay tànk Emmanuel Macron day wax ak président Diomaye génn ne waaw je suis yi gis naa ni voilà nangam ak nangam seen télévision yi ñu ngi koy wax des Français le disent mais arrangé wu leen ñu ne waaw les Sénégalais yi li ñu yàgg di wax actuellement moom mooy nekk li nga xam ne mooy destiné wu mooy un partenariat gagnant gagnant c'est ce qui veut dire que ñoom dans leur conscience xam nañ ne partenariat gagnant gagnant amul France partenariat gagnant gagnant bi arrangé wu ko mais France mënuñoo bàyyi parce que li Amina wax intérêt moom moo fi nekk mënuñoo bàyyi. d'accord waaye léegi loolu noonu muy perte suñu nee cinquante cinquante France perte benn vingt pour cent boo xam ne doon na ko am. Hmm. supposons mu doon am soixante dix wala quatre vingt mais yéen yaakaaroo leen ni que ni France dina bàyyi noonu mu sedd dina ruube dina xool lu muy jaxasee dina xool lu muy xëppee parfois ci ñam bi suuf. mais ñi ñu jiite man yaakaar naa ni su dee des personnes ordinaires entre guillemets ñoom ñooy am benn euh, benn benn xalaat bu xaw a avancé que ni français yii nii nii nii nii nii duñ leen bàyyi ñu gouverner comme il le faut partenariat bi nag mënul ñàkk mais danañ ruube ci suuf man yaakaar naa ni ñi ñu gouverner dinañ am xalaat boobu noonu de manière très avancée que ni duñ ne duñ ñu bàyyi <laughs> dinañ la siñ nii de. mais duñ ñu bàyyi mais qu'est-ce qui du ñu jël suture ay information ci général boobu ñu décorer qu'est-ce qui nous dit ça. Hmm. <laughs> jaara euh, jaara lii nii dafa dafa dafa dafa laaj xalaat. donc te euh, général bi fi mu nekkoon. nañ ko surveiller bu baax a baax. zone bi mu nekkoon c'était une zone très. très très stratégique. mais mais Socé laata laata ñëw ci loolu. dama dégg sànq qui aussi. d' dama dégg sànq nga wax que ni euh, voilà euh, président Macron dafa mel ni dafa sentir ay daf dañ daf euh, peut-être dafa sentir ay menaces. ak yu demee yu ni mel. Mm-hmm. mais dañu gis ni ci jaloom ak président Bassirou Diomaye Faye d' après moom li mu wax mooy que ni <laughs> président convaincre nañu ko. mu gisaat jamono ju toll ni peut-être acte yi nga xamante ni mu ngi koy posé. mu mm-hmm. xaw a jiixi jaax lan lañ lan. lan la war a euh, lan moo ko war a menacé ci jano bi nga xamante ni na ko ak président Bassirou Diomaye Faye pour yow. Euh, wax naa la ko léegi pourtant ci sama kàddu. Mhm. mais xam nga gis nga li xew nii géopolitique la. Mhm. géostratégie la aussi. Mhm. géopolitique la géostratégie balaa may ñëwaat ci menaces yi mais yéen seen xel teeyul ci France Emmanuel Macron président la Bassirou Diomaye fay président la ñoom ñaar ñëpp c'est des homologues mais seen xel teeyul ci ki nga xam ne moom moom la fi Bassirou Diomaye Faye jële wëlbati ku nekk un employé de la France mm -hmm. un employé Macron maanaam yow yaa fi jële kii certes yaa ko fi jële mais moom léegi désormais man lay liggéeyal c'est vouloir mettre la pression sur les nouvelles autorités. <laughs> dégg nga li ma wax que. oui bu baax sax. ba pare mais qui avait nommé le général Kandé. <laughs> Macky Sall président. moo ko nommé woon. Mhm. et bi mu koy nommé le général Kandé am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ko ëppoon grade supérieur ko téeméeri junni yoon ah. ci jamono yooyu sax nee noonu lañ bëree woon ay privilèges. mais Macky Sall moo ko promouvoir. Mm kon ce même Macky Sall bu bu bàyyee suñu réew dem nekk un employé d'Emmanuel Macron <laughs> mais c'est logique mais loolu yëpp tey dafa am lu ko lu ko waral li ko waral mooy France li mu nekk di ñàkk Afrique de delluwul ginnaaw day jëm kanam. day jëm kanam. <laughs> lu ñuy gën a dem muy gën a ñàkk. muy gën a ñaaw. te xam na ni autorités yu bees yii fi ne gis nga moi je reste convaincu je le dis et je le répète. la rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron n'a pas si tendre. kon hmm. gëm ah <laughs> gëm naa ne. Bassirou Diomaye Faye am na fa lu mu ko wax loo xamante ne duñ ko wax mukk ci biti. léegi nag loolu c'est différent du communiqué bi nga xamante ne loolu c'est le langage diplomatique. Hmm. waaw kay merci Socé c'est le langage diplomatique. langage diplomatique bi dafay wute souvent ak la réalité. Hmm. mais loolu kenn du ko wax. de la discussion. Vladimir Poutine fii la taxaw ne France gis nga bis bu bu ko réewu africain yi wanee ginnaaw septième place bi mu nekk au niveau mondial ci e, ci ci réew yi nga xam ne ñoo ëpp doole sur le plan économique mm-hmm. mais dafay régresser day day arrière bu baax a baax a baax ci rang bi parce que la France en vérité rien mm-hmm. loolu moom euh, soo si nga nekk expert sax pour comprendre. li li li mm-hmm. muy li muy liy dooleem lépp. ci africain yi la ko yaakaare. léegi nag yow plus africain yooyu di yeewu. plus ñuy ñu nekk ay nit ñu décomplexé génn ci kudd bi nga xamante ne yaa leen ko teg. mais di nga def lépp pour yow xeex leen. diviser pour mieux yooyu nag dafa am ci lu muy tàmbalee. Mhm. xam nga tey xam nga tey la décence même voudrait que cette nomination la même bu ko France waroon def sax ñu aj ko. parce que mënuñu mënuñu wàccee un général. mu def polémique dans un pays polémique. même pas quelque temps nga ne yow da ngay promouvoir ce même général mais loolu wax la en fait en diplomatie les actes day wax ay wax la moo tax fulla ak fayda ju mat sëkk la laaj sëkk gis nga gis nga l'armée malienne depuis que le Mali existe bi ñu signé des accords avec la Russie ci la ñu tàmbalee am ay ngànnaay yoo xamante ne ba Mali existé ba léegi mosuñu koo am mm-hmm. pour sécuriser leur territoire sécuriser même l'espace aérien malien mm-hmm. avion bu fa dugg gis nañ la te Mali pourtant temps ñaata année de coopération militaire la def ak France te mosuñu ko am bañ génnee seen bopp ci France dugg ci Russie te quoi ils ont osé quitter mm-hmm. kon choix la et que bi aussi dafay laaj xeex dafay laaj aussi détermination mm-hmm. détermination bi nag ak xeex bi du rek le président de la République c'est tout un peuple tey bu peuple sénégalais bi deful bloc autour du président Bassirou Diomaye Faye autour du premier ministre Ousmane Sonko ñoom lu ñu xeex xeex xeex xeex ci kaw ci wàllu géopolitique géostratégie mhm. te peuple bi àndu ci ak ñoom mais du sotti du sotti du sotti mhm. moo tax ñoom aussi man gëm naa li ñu war a def nañ ko def de mhm. wallahi nañ ko def gis nga les accords militaires la mu neex France mu naqari France danañ ko revu danañ ko revoir mënul ñàkk mun mënta ñàkk. et soose pour pour pour pour dëggal li nga wax ci li nga xamante ne moo di accord yi nga xamante ne mi ngi am ci diggante réewu France ak ñi nga xamante ne ñoo di pays africains yi gis nañ Mali instant bi moom am na audace dem na yoonam Nigéria Burkina Faso donc France dafay am menace boo xamante ne Niger autant pour moi dafay am menace boo xamante ne moom mu ngi koy sentir ci yenn pays africains yi parce que bu njëkk ba pays africain am noonu audace mais da ngay gis léegi donne bi dafa que xam nga ne France day am élection sénégalaise yi passé nii la France avait un candidat. day samp candidat dañuy de am na France am na ñoo xam ne ñoom ñoo koy samp. exactement xam nga lu koy indi. Mm-hmm. Abdoulaye Wade ci fin de régnam dafa xuloog la France tourné wu vers les pays du Golfe dem ci naar yi. ci naar yi la mujjee woon. Mm-hmm. France mere ko ngemb Macky Sall def ko seen candidat. Mm-hmm. xeex Abdoulaye Wade sur tous les plans comme lu ñu def Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. forcé leen Alassane Ouattara par force. Mhm. c' est un moom moo défoncé portail yu résidence su Laurent Gbagbo loolu tout le monde le sait. mainmise bi muy lay wane à chaque fois que ni France dañuy am mainmise ci pays africain yi. non mhm. nag day poser ay yoo xamante ne de façon subtile de façon diplomatique parfois. et qui ont des conséquences dramatiques dans le futur. gis nañu fi Mali embargo bu ñu ko fi defoon ak li nga xamante ne jot na ko fii dund également mais teewul génn na ci. non moo tax ma ne la détermination d'un peuple mm-hmm. moo tax tey ñun bu ñu nekkee fii sa waay di di coow ay mburu géopolitique ak géostratégie romb na loolu wallaahi cest à que un peuple tant que ñun parewuñu pour def un minimum de sacrifice, sacrifice pour accompagner nos dirigeants amul mm-hmm. sens mm-hmm. amul sens a supposer que ñu ne tey dañuy génn ci ci franc CFA mais ñun Sénégal dañoo war a quand am euh, détermination pour pouvoir supporter les conséquences ba ba ñuy gis la bout du tunnel. Mm-hmm. faaw mu métti la début. ah déet. Mm-hmm. pour nga def ay om pour nga def omelette nag faaw nga toj nen nag. waaw Mali dañ am na mais mujj gi. faaw nga toj nen naa gis boppam ci mbir mi. moo tax mm-hmm. gis nga gis nga ñun wallahi al azim li ñu tey développé 1960 ba nëgëni benn réew moo nekk suñu kaw bopp bi rek lànk ne duñu bàyyi muy la France. barki yàlla. tënk nañu ci franc CFA bi tënkuñu ci accord de défense yi. tënkuñu même ci suñu économie bi fii. il y a beaucoup d' entreprises yoo xamante ne c' est des entreprises françaises. françaises mhm. des axes yoo xamante ne dañu nekk ay piliers ci développement réew. ak seen base militaire par exemple l' exemple des télécommunications tënkuñu mhm. suñu kàllaama bi tamit. Mhm. oui télécommunication kan moo ko yore. monopole bi yàgg ñoom ñooy concurrence te ñoom ñuy concurrence. ñoom France y' a combien de bases militaires. bëri na. ak ak stratégique yi nga xamante ne ñu ngi fa donc tënk na na la ci xaalis. tënk na la ci làkk tënk la ci wàllu kaaraange. tënk la ci wàllu koom-koom mais boo xeexul doo ci génn. parce que loolu du luñ lay tegal nii sur un plateau d'argent. Mm-hmm. tu dois te battre. Mali def Burkina def ko. Niger def ko Niger def ko. Mm-hmm. Ah, attention ñoom dañoo sonn ah. léegi nag ñun Sénégal est-ce que ci dem on mais man daf may renvoyer toujours ca déjeuner ba gis nga añ boobu. añ boobu am na lu fa xew. safoon na kaani hmm. donc diggante mais Emmanuel Macron le président Bassirou Diomaye fay waxante nañ loo xamante ne kenn du ko bind ci communiqué kenn du ko wax ci télé. Hmm. parce que acte bii Emmanuel Macron posé. Mmh. mais dafay wane loolu. il veut donner une réponse à quelque chose qui s'est passé mais on fii moom seen bi xoolal laissons le temps au temps hmm. mais ñun suñu force de défense nañu gën a taxawaat suñu njiitu réew nañu gën a taxaw. parce que dafa am loo xam ne bu ñu ci bëggee génn dafay laaj xeex. dafay laaj waxuma nag xeexu jël ay ngànnaay déet déedéet détermination taxaw ci fulla ak fayda laay wax ak Pastef dafay laaj aussi muñ ak accompagnement bu jóge ci sa peuple yow xam nga li wax. Mhm. donc loolu fekk demuñu ci et puis jéem a génn ci tënk bi ñu tënk ñun ci ci ci yii ma la limal nii mais fekk ñu ci duñ ci limal ma benn réew boo xam ne dafa développé wu ci xaalisu jàmbur. mais ñun le français fa la moomuñu ko. moomuñu ko de. Mhm. làkk bi ñuy làkk nii le français mais moomuñu ko. te pour ñun ku ci làkkul tubaab pour ñun yow doo nit. <laughs> mais mais mais c'est-à-dire que. boo koy analyser finalement da ngay mujj sax découragé. barke Mohamed mais nag psychologiquement foo kenn ku ci nekk ci askan bi mu changé mentalité loolu di koy dindi. Mhm. xam nga dans l'histoire d'un pays parfois dafay am l'émergence de nouveaux leaders. Mhm. pour génn ci loolu foofu nag la Sénégal toll nii. président yi fi nekkoon yépp dafa am ak nooyal gu ñu doon def seen diggante ak France kii rek daa ñëw moom tangal affaire bi Macky Sall nee naa la sa première sortie officielle France la ko def Bassirou Diomaye Faye fan la def sa première sortie officielle da leen ne eh yéen France toog leen ba ma am seen jot. amaguma seen jot xaaral ma lijjanti sama sama dëkkandoo yi ba pare. Mhm. dem Mauritanie dem dem Gambie dem. Guinée ci pays yi nga xamante ne militaires yee ko jiite. d'abord parce que parce que parce que le président Bassirou Diomaye Faye ne doit rien à la France. Mhm. il n'était pas le candidat de la France le candidat de la France tout le monde le sait xam nañ ko. <laughs> mais Socé xam nga sànq tamit da nga wax lu lu am solo ci euh, les actes et la diplomatie nga ni les actes sont parfois des paroles de la diplomatie actes yooyu noonu président Diomaye def visite yooyu noonu mu accorde mu mu mu def au niveau des pays limitrophes. ça parle aussi. Mm-hmm. xam nga message indirect la. pour les français gis gis nga pour ànd ak ñoom. bien sûr. pour ñi nga am ne ñoo mm-hmm. te fii gis nga réew yi réew bu nekk ay intérêt rek la am. gis nga France ni moo amee intérêt Sénégal. Mm-hmm. Sénégal moo war a wane la ak fayda que ni ñun aussi dañu am intérêt intérêt bi mooy ñun lu ñu moomal suñu bopp nañ ko téyel suñu bopp. muy nos ressource naturelles suñu li ëpp solo suñu économie. suñu làkk bu jaree ñu xoolaat ko xaalis bi bu jaree ñu génn ci ñu génn ci. mais xaalis boo xam ne 60 mën nga ni yow sëñ bi moo la tënk mais France dafa nekk ci ay réserve kenn xamul nu mu toll. pour le Sénégal. ci lan parce que xaalis bi moo ko wax naa la benn village bu dee la ñuy defaree france CFA bi. defaree wuñ ko sax Paris. benn village bu dee bu nekk foofu lañ koy lañ koy tëggee indi ko ci réew mi. numéroté ko indi ci conditions yi naka la ñuy naka lañ ciy génne. naka lañ ciy génne moo tax Nicolas Sarkozy l'élimination de Kadhafi africains yi dañu war a dem jàng les véritables raisons mm-hmm. Kadhafi de la Libye na dem gars yi jàngataat les véritables raisons parce que Kadhafi été pour une monnaie commune africaine Kadhafi été pour une armée commune africaine mm-hmm. it sori woon na ci torop torop torop mais ñii xam nañ ne kii bu ko bàyyee projet bii bu ko réussir ñun français yi dañuy dee. ils l'ont éliminé. sàkkal ko pexe. noonu def. mais projet boobu day. léegi nag léegi nag gis nga ci détails yu mel ni ay nen yenn yi di ko ñàkkal fayda. ngay marqué sa am. les actes d'aujourd'hui mhm. dama na la les conséquences c'est pour demain. Mhm. nañ ci bàyyi xel mais man sama xel la ciy dal parce que xam naa ne ñi ñu jiite am nañ ci fullaak fayda ju mat sëkk. Mhm. waaye nag ñoom luñ ko am am am tant que peuple bi. jàppalewuñ leen jàppalewuñ leen accompagner leen sécuriser leen s'il mais du sotti. parce que ñoom li ñuy def nag peuple bee ñu koy def de mm-hmm. le président Bassirou Diomaye Faye bu ko neexoon day dem bureau day impôt domaine mm-hmm. kilim ko ba mu sedd guy <laughs> weer wu jot mu laal ay salaire am dem tëdd njëga ñaaw di ko lekk mook njabootam le premier ministre Ousmane Sonko bu ko neexoon impôt domaine gay lay toog xoolal dem Ziguinchor di noos jàpp njàmburam mais li ñu c'est le soubassement de leur combat c'est ça en fait c'est ça que la France a compris moo tax lu ñu leen mën a bloqué dinañ ko def waaye nag dañ lànk te dañuy lànk nag sax. ban lañ ci bàyyi. dañuy lànk. ça nara passera.